Thank you. bàkk ba jib na générique bi départ na jàngat làmb tàmbali naa ak bàyyi ji di ma ànd ci Ouzin euh, di leen siyaaraat bu baax ci ànd bi bu rafet bi nga xamante ne ànd ngeen ko ak wasaare làmb gis nañ commentaire yi gis nañ message yi gis nañ safoo bi nga xamante ne euh, ngi jëm ci màggal Touba euh, dëkk bu sell ñaan rek yàlla na suñu borom kattanal doole ba ñu yegg ak salaam euh, ba ku ci nekk nag euh, li nga xamante ni bëgg nga ko muy doole euh, ay fête religieuse la allah adduna bi namoon nañ ko Ousseyn ma lay jaajëfal bu baax di la delloo siyaar bu baax a baax baax di di leen siyaar di leen fay bu baax a baax di leen euh, safoo di leen di leen di leen tocc di leen diw di leen diwoo di leen siyaar bu baax a baax baa jili fay naa la bu baax a baax euh, tey ñu fas mhm. euh, ci ànd di def moom it jàngat làmb ju am solo euh, Ousseynou tamit ñu ngi ko ciy mu koy def tey ñu fas yéene wax waxtaan ci biir bilaaw écurie bi nga xamante ne mooy bilaaw écurie suñu papa Doudou Baka Sarr Doudou Baka Sarr ñu ñaan yàlla suñu borom euh, yërëm ko taxaare ko àjjana mu doon kenn koo xamante jàmbaar woon ci làmb tey équipe boobu la ñuy waxtaanee muy Doudou Bakassar mais Doudou Bakassar ñu def cinq victoire am nañ trois défaites mu bëri ay champion yoo xamante ni ñu ngi ci équipe ba équipe moom bu am daanaka ci cinq victoire trois défaites mën naa ne jaadu hmm. ndax euh, comme ni ma koy waxee xale yi ku nekk bëgg a feeñ. Hmm. te ay xale bu ñuy tase jom dafay feeñ fulo dafay feeñ. ngelaw mi dafay feeñ ndax ku ci nekk day bëgg a wane sa bopp te xale yi baa jil boo seetloo seen combat yi muy gën a métti ci combat yi seen combat ni muy gën a méttee ndax ku ci nekk day bëgg a feeñ ndax amaana bariwul saison bi am nga gis si wenn xale mu ci deux combats wala trois combats. ba tax na bu ku ci am combat da ngay bëgg a reyante bëgg am ndam moo taxit bu ñu amee cinq bu ñu amee cinq victoire am trois défaites dama leen koy nangul ndax ñoom di waa équipe Doudou Baka Sarr def cee bari ay xale ndax boo xoolee amul mën naa ne amul mbër mu mag. ndax su ma nee mbër mu mag ay boy Dakar laay wax te moom daan naan la ci wàllu bu nekk yenn xale yi nga xam te ne ñoo fa jot a génn bëri na ñu am na ndam man daal dama leen di encouragé ci cinq victoires et trois défaites dama ne naan chapeau. Hmm. Euh, danaan ni ay champion yàgg nañ hmm. euh, boo xoolee na ay champion yoo xamante ni ñu ngi woon ci Euh, may nuyu bu baax a baax a baax doom doom boo xamante ne. macha mm-hmm. allah ku mënoon bëre ndax du Baka Sarr suñu papa Doudou Baka Sarr amoon na ñaari doom ñoo xamante ne euh, dañ leen daan gis ci làmb euh, ku ci mel ni Alibadou Alibadou nga xamante ne. champion wax dëgg ndaanaan ba. waaw Alibadou champion nekkoon équipe mais Alibado li muy mën bëri mën bëri man am na beneen rakkam boo xamante ne macha allah kooku moom euh, kenn du ko wérante ci làmb ñi seetaan Wassare Làmb xam nañ ko muy Cheikh euh, Cheikh euh, nu mu tuddati waaye Cheikh Tidiane Cheikh Cheikh Ousmane Sarr Cheikh Ousmane Sarr Cheikh Ousmane Sarr Cheikh Ousmane Sarr mu nekk xale boo xamante ni non macha allah ku mën a bëre parce que Ousseyn Cheikh Ousmane Sarr bi ma koy njëkk a gis mu bëre. mémorial Doudou Bakar Sarr noonu ñu ko doon defee fële ci asalam. moom moom moo ko jël moom moom Cheikh Ousmane Sarr moo ko jël loolu bi jour boobu Modou Modou Brésil. lii mën moo ko cee ñàkk bañ a dugal. kàggu gis nga lii muy wax nii mémorial bi muy wax nii kàggu da nga may xoolal ma tuuti su ma lay muy wax nii moom mi da cee bëri bindu lu garaaw nag xam naa dinañ leen xaw a jaaxal. ndax euh, dañuy toog koñ ba ba mu neexoo mu ne moo ngi génn ndeke ba wut na saagam def ci li nga xamante ni mooy ngeen ba dem bëri ji. defe naa ne sax dem na ba demi final loolu moom dama ko koy jaajëfal ndax ñi nga xamante ni ñoo ngi naan ko sa tànk yi naka nga def ba di ci dox moo di leen ci yokk loolu taxaw na ci samp ci bëre ndax moom mi mbër la woon waaye dafa mel ni xaaxaa moo ko génnee làmb ji yeggeel it kon dafa mel ni yaa yaa yaa xaar ànd sekk war ngeen a bëre de. Mhm. parce que tey dama la ciy wax benn anecdote euh, dama toog 2STV di seetaan làmb bi jékki-jékki rek day dégg sama papa Moustapha wax ko. Mhm. jamono jooju maa ngi bëgg làmb di ko dund carrément parce que man pour man fi mu toll nii kuréel bi Balla Gaye di yor wala Modou Lo yor sama loxo bi lay dund ba ba làmb boo ci ba tas ba jékki di la di la nuyul kii kii toog sa <laughs> ma dem ci mémorial bi ab ngem billaay àbb kër ba yéen dem sama kër dem bëri ji même yàlla mu ngi tas seen kër di matin mais dafa faa jëlee biir si bu métti boo xamante la voilà jaaree na làmb lu dégg baax ko wax. dem naa ba demi final la vraiment dem naa ba léeg-léeg dem naa ba demi final daan fa ay mbir yu bari waaw mais demi final moom booy bi sama tànk bi la jàpp mu doon loo xamante ni tey Cheikh Ousmane Sarr moo ko jël. Garga de bëri na ci. yeneen daanaan bëre nañ ci Cheikh Ousmane Sarr Garga 2 yaakaar naa su ma juumul léegi bi ma daanee demi Garga 2 moo jël demi final ba Garga 2 moo ko jël Cheikh Ousmane Sarr moo jël poids euh, doon mbër moo xamante ni ba tey euh, ak ni mu doonoon champion d'Afrique euh, doon champion chef de l'État boole ay raay yu bari moom Cheikh Ousmane Sarr ñu jékki-jékki gisatuñ ko keroog doon laaj mu ne mu ngi bitim ñu koy ñaanal fépp fu mu nekk yàlla na suñu borom dafa kàttan eh, jàmmal ko la wut yàlla suñu borom dafa ko ci lu karam mu doon loo xamante ne écrit la mais écrit Ouzin bu bari ay champion macha allah écrit la boo xamante ay xale yoo xamante ne ku leen ci làmb dañuy dem xam nga tey ku mel ni Sabala nga xamante ne eh, mu mujjee bëri ceebu dóor dóor ak arène nationale mm. ñoom ñaar ci combat boo xamante ne combat bu neex a neex a Euh, nga xam ni kii di bu ndaw bu ndaw moo daan Papa Sambir la daan moom mu nekk xale boo xamante ni xale bu mën a bëri la euh, xale bu am jom la euh, ku mel ni bébé Alioune Seye bébé Alioune Seye tamit fa la mu doon xale boo xamante ni jàmbaar la ci làmb moom it ñu ngi fi ñu ngi fay góorgóorlu bu baax a baax a yeneen daanaan yoo xamante ni tey boo leen limee doo juum mais dama leen dul matal ñu xam ni équipe boobu di équipe euh, ki nga ne mooy suñu papa. Doudou Baba war nañ ci mën a bàyyi baax a baax a baax parce que xale yi nga xamante nekk ci équipe ci jàpp parce que équipe boobu kat fépp fu école de lutte Père Baba day toll fépp fu école de lutte euh, Boy Niang toll fépp fu école de lutte euh, Double Less toll fu école di équipe bi Père war nañ taxaw parce que nag làmb fi mu toll nii dafa doon loo xamante ni euh, mag ñi waruñu mujjee puso bi ba pare yi nga xamante ni tey ñoo fa nekk euh, mag ñi li ñu waroon ñoom xale yi nag kon fi mu toll nii ñoom ñoo war a góorgóorlu yëkkati relais bi bu fu ñu tuddee écurie rek tudd fa écurie bi nga xamante parce que da gis ni ay ndaanaan ñu ngi fa ay xale yu am jom ñu fa xale yu mën a te xale yi booloo nañ ñu euh, hmm. comme ni mu koy waxee rek man ñooñu nga lim noonu ay Doudou Baka Sarr Père Double Less Balla Gaye hmm. ah ndem si yàlla Falaye Baldé hmm. ñoom dama leen a yéene woon ñu am ñoo xamante nii dañu mën a am cër ci làmb ndax boo xoolee ñooñu nga fi lim nii defal leen làmb lu bari mais làmb defalu leen da su mu ne làmb defalu leen da maanaam ci wàllum koppar laay wax ndax seeni jamono tolloon na foo xamante nii xaalis amul woon ci làmb bëgg-bëgg moo leen ci bàyyi woon dama leen doon ku ci nekk nag ñu ci bëri am nañ ci ay doom yu nekk mbër mais dama leen doon ñaanal ku ci ñu ci bëri am doom yoo xam te da leen di dégg ci làmb bañ leen mën bañ mën a jàppale leen ci lu bëri ku ci ni Alou Badou ku ci ay xale lañ yoo xamante ni nii ay ndaanaan lañ waaye soo génnee foofu nga laal bu ndaw laal booy dakaar ñooñu rek doy na ci ñoo xamante ni ku leen defar hmm. téyewaat leen am loo leen gëmloo dinañ mën a teye làmb ndax boo xoolee kii nga xamante nii mooy booy dakaar ndaanaan la xale la boo xamante ni su bëree nga ne waaw su ñëwee waa waa waa Ndakaaw yëpp dinañ ànd ak moom gunge ko. Mm-hmm. ba boo ko xoolee da ngeen ni kii fan la jógee ak kii mooy kan ndax nit ñi comme ni nga wax rek seize mën nga koo luye waaye nit kenn mënu koo ab kenn mënu koo luye te saa bu jógee waa Grand Dakar ñëpp toog ci ginnaawam mm-hmm. boo xoolee moom def na su ma juumul onze komba mm-hmm. onze victoire wala dix onze combats dix victoire ak benn défaite. dafa mel ni amul défaite sax nag de amul défaite ndaanaan la ci wàllu làmb bu leen jàppalee ñu góorgóorlu war nañoo mën a am lu bari ndax maa ngi doon dégg combat moo Petit Niang waaye yàlla dogal na ne Petit Niang am na combat su ma juumul moom jël jot naa jël avance. Hmm. waaye adversaire la amagul moom booy Dakar. Hmm. lu ci bari nag dañu koy faral di réclamer waaw Wassare Lamb ndax ku ne xam na ne Wassare ci làmb lay dox boo xoolee vidéo bu ñu dugal dañ ci gis commentaire dem leen jëli Boy Dakar dem leen jëli Boy Dakar. Hmm. ndaanaan na dafa bokk ci làmb di leen wax ne nag ñoo ngi ci tànk yi xëy na peut-être dafa jotagul rek ñi nga xamante ni yéen a safoo Wassare Lamb di fans Boy la bàyyi nga yeggali. waaw Ouzin noonu la demee parce que làmb euh, saa rek ñi la bëgg. Mhm. Euh, ñoo la sonal. Mhm. bu fekkoon tey nit ku nekk rek bu dee amoo ñi nga xamante ne te ñëpp tax mun ñoo ànd euh, sapoo la wala ñu lay moo tax boo Dakar boobu du ñaar du ñett keroog dafa am mhm. damay daw ñëw ba ci tali mu arrêté ma ma taxaw mu ne ma bàyyi jiibi mu ne ko sëñ bi maa lay siyaar ñu waxtaan ak mu ne ma bu booy Dakar. Mhm. ah maa ngi lay baax a baax baax am ngeen mbir moo xamante ne champion ngeen champion la te bu ngeen ko jàppalee ci làmb lépp lu ngeen bëgg ci làmb di ngeen ko am moo dëgg la mais dama bëggoon nga ñëw seet si nga xam ne làmb noonu la parce que nit ñi euh, amul lenn ni leen ko jaay. Mhm. tey ku naan la est parce que am na fu mu la teg. Mhm. jàpp na ni wasaare làmb mooy site internet bi nga xamante ni euh, njaaxaanaay la tëddee. man nga am ay ak nga ñàkk am doole doonal mbër rek bëgg làmb oh, ma ñëw sa kër jël si la allah rabbi parce que man jël naa Ouzin man jël naa mbër mu am licence jël naa mbër mu jël naa mbër mu dugg jël naa mbër mu duggul xëy na ak moo tax activités yu bare bare bare arrêté mais li may wax ni ñu ci mari euh, xam nañ ko euh, ñu siyaaraat bu baax a baax a baax waaye ñi nga ñooy euh, axlu làmb Sénégal. Mhm. parce que ñu ngi ciy bàyyi bay waar bu am solo parce que damay gis des fois dugal ay yenn image wasaare di wax ni internet bi rek la ñu gis nii muy site internet boo xam ndaw ak mbër mu mag xëy na nag ñoom ñoo ko remarqué ba wax ko ñu leen a xamal fi nekkal yéen ñi nga xamante ne yéen ñi mbokk internet ñu seetaan wasaare làmb. safoo ko lépp lu ngeen bëgg incha allah rabbi même donte duñ ko mën sax mais dinañ ci def suñu kéem tolluwaay kàttan ba satisfaire leen yéen ñi nga xamante ne yéen suñu mbokk internet ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax Ouzin tey loolu la ñu doon bilan équipe bi nga xamante ne mooy équipe euh, Doudou Bakar Sarr looy tàggatoo. waaw di tàggoo tàggoo bu ànd ak tàqaliko mm. di leen wax ni comme ni mu leen koy waxee chaque jour rek. Mm. Wassare Lamb comme ni nga ko doon waxee sànq xam nga mbër mu mag mbër mu ndaw. Mm. man dama ko andi slogan ne. ki naan benn ñaar ki naan saam ñaat ak benn ñaata mënoo yem te Wassare Lamb dafa ñëw ne saam ñaata bu mm. mu ne Wassare dafa ñëw ne ñaata mooy équipe bi macha allah liggéey rek lañu bëgg mm. te ci la ñuy dox mm. bëgg lu leen di leen satisfaire li nga loo xamante ni da leen di neex wala loo xamante ni ci làmb lay lay lay lay lay dox ak ñu bëgg di leen ko ci tegal ba tax na nag dama naan leen ba beneen yoon ah ak jàngat làmb ba beneen yoon ak mbëri ba beneen yoon ak jàmmaarloo mission bu mag bi jërë ngeen jëf loolu la leen tàggoo ci tàggoo bi nga xamante ni mooy tàqali ko ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë jëf.